gannaaw rumeur yu ñu doon wax ci Sophia ma madame Mbacké ne rek dañu ko mettre en quarantaine ba def ci sax image moom moom ko Sophia daal na si indi ay leeral di xamle rek ni dala daru ko mu ngi ci jàmm bu baax a baax te nag ña def sax boobu boobule xibaar nga xam ne amul ba def si photoom rek dana leen toppandi ba fu mu yem neex si noonu muy ñaaw lu boobulee mbir gannaaw ba mu xamle sax ne ay mbokk ma ki jege ñaaleem ñëpp si jaaxle woon ñu ku nekk rek di koy mbir ba sax a ku nekk ba Touba nee na sax si moom la njëkk a yëggee boobule information gannaaw ba mu ko woowee rek di ko siy laaj ay leeral mu doon nag la nga xamante ne ni doon na la mu lu ba fu lu yem. ba tey rek ci bile mbir waaye bile yoon ak Sophia Thiam di animatrice ca 2STV mi nga xam ne ni rek dafa toog këram ngir eh, bile feebar di coronavirus bi moom nag xam ne na ni rek eh, newul ne 2 ñoo ko wax mu toog këram dañ ko ko conseillé rek moo tax mu toog këram ñenn ñi sax di doon naan borom këram dafa jóge ko Italie te moom moomee rek dem na ca Touba ñaari yoon sofia daal dinay xam ne rek borom këram demul woon Italie si noonu sax muy leeral ni la ko gën a métti eh, si bile feebar mooy moodu moodu guddi ak faatu faatu yi nga xamante ne ni rek ñu ngi leen di daw bu baax a baax ndax bile feebar eh, si noonee lay xamee nag ni eh, lii am na lii am am na ba noppi te bu ñu gisee rek moodu moodu wala faatu faatu di jël gaal di daw di ñibbi si réewam kon kooku jaaxle na te askan mi waruñoo def lu dul jàppale leen laata rek muy naan àdduna du añ du reer waaye lu jot suur la te rek nañu xam ne bile feebar dafay jeex.